Ndiaye yaa ngi encouragé élèves yi nag pour ñu nekk ay milliards nag bu dee kii dafa bind. waaw nga man bu ko liir kii nee na sama rakk mooy màndi di ma jàpp di. Mm, mm, mm, ah kon bi ko déedéet lépp lañu war a liir. ah wax bu yegg dafa ko moom. ah ñu dem ak suñu xel xalaas bii day xalaas bu doy waar boo xam ne. Mm-hmm. démb la ko fi paas andi. moom bi ma ko expliqué man. mënu ma koon comprendre may laaj di laaj di laaj ba heure ba jot. na ko léegi bàyyil ba tey xalaas bi nu mu demee paas. Euh, ndaw si dafa nekk seen kër ak wéjuram wu jigéen ak frère mais kii yaay lañu bokk bokkuñu moom bokkuñu papa yaay lañu bokk ñu nekkoon seen kër ñoom ñëpp mook waa ji jotee nañ fi ba waaje ji jamono ko fi paaka ay jamono ba ñu jàppoon waa yi waa ji génn di dil di jaay ay yàmbaa ñu jàpp ko tikke ko so quatre ans jàpp cinq ans mais ci biir tëj bi nag. ndaw si amoon na problème ba génn kër gi bi seen yaay feebaree mu ñëw di ko taxaw loolu waa ji mi ci kaso bi ci diggante bi seen yaay génn àdduna ñoom waaw waa ji génn na kaso ñibbi si kër gi nekk fa ak waa kër gi ak ndaw si di waa ji wax nii. rakkam la ndaw si rakkam. ñoo bokk yaay. léegi non ndaw si moo mag waa ji. mais ñoo bokk yaay non. Mm-hmm. léegi waaj bi mi ngi waa kër gi ba ñëpp génn nañ kër gi bàyyi na fa ñoom ñaar dong ak ndaw si ak ay doomam. waaye saa yi génn jee màndi ba ñëw ndaw si day jabaroo te ndaw si magam la ñoo bokk yaay moo tax man bi ma ko expliqué démb dama ne ko bala ma koy gëm faaw ma dégg femme bi ci boppam ndax victime bi hmm? te nee na ko tànk yaa ci kër gi nag moom noonu lay demee dem ñëw rek nii la ko yéeg nii te kër gi seen yaay mun na ko tànk yaa ngi fi toog ci kër gi su ma demee bu ma kiiwee bu ma ñëwee yéeg waaw. mbete étage su ma jabel nan déglu. déglu. sama rakk la moom kaso la nekkoon def na fa juróomi at génn ñëw si kër gi bu mu ñëwee ba tey mayu ma jàmm mayu ma salaam màndi lay def kër gi ñëpp lay xeexal ñuy tuuxu ñi mu jotee ñëpp roñ nañ seeni bagage ba dem man maa des si kër gi day dem màndi ba xaaju guddi ñoom bu bisoona nekk fekk ma fa di ma tëddee nekk la may def def na fa ñeenti at bi muy génn fekk na sama yaay gaañu fekk na sama papa gaañu mu ñëw si kër gi sonal ñu ba bëgg a dee lu nekk la ñuy def man mënuma wax bu baax na te bëgguma kaa tëjlu boo ko tëjloo fu mu nekk na rakkam bëgguma kaa tëjlu man ku ma dimbale rek laa bëgg pour ma génn la may wax tant que génnoo kër gi saay bu ma demee ba ñëw yow laay jabaroo ko mënuma génn si lii parce que xaw ma fu may dem sama njaboot ma bëggoon rek ku ma jàppale su ma amee sax ku ma abal fu ma nekk dimbale ma ma génn si biir kër gi ndax damaa sonn te bëggutuma kaa yóbbu bëgguma kaa kaa yóbbu kaso bëgguma kaa yóbbu seen comme kër gi la bëgg ma bàyyil ko ko pour ma dem ma bàyyi ko ku may dimbal ko rek ngir yàlla fu nekk laa dem loolu ñaan ma yàlla mukk nangu ko sama àdduna yaay laa bokk ak ñoom sama yaay moom kër gi ma bokk ak ñoom yaay bokkuma ak ñoom papa mu jote woon fee ak man ba jam ma paaka ma génn kër gi dem ma génnee kër gi sama yaay feebar sama yaay feebar ba sonn ma ñibbisiwaat si kër gi yor sama yaay boobu moom mu ngi kaso ñu jàpp ko affaire yàmbaay ñu tëj ko te biñ koy jàpp di ko te man boobu nekkuma si kër gi sama yaay bi mu feebaree si laa ñëwaat si biir kër gi léegi ñu jàpp ko moom si affaire yàmba mu def si kaso bi ñeenti at ba dugg si juróomi atam si lañ ko bàyyee biñ ko bàyyee fekk na sama yaay gaañu ñoom seen papa gaañu man bokkuma si biir kër gi day dem taxawaalu ba xaaji guddi mu mandi ñëw nee man ni ko naqar maa ko def ndax maa ko tëj lu kuy jaay yàmbaa yore sa yàmbaa di jaay bañ tëj la si ñeenti at loolu man nan laa ko kay defe mu ñëw si biir kër gi day ñëw si kër gi fekk ma si biir kër gi di ma menacé dugg sama biir néeg fexe ba tëdd ak bu ko defee ba pare naa man gisagoo dara bés boo waxee dama lay rey chaque jour mu ma kay def mu ngi nii si kër gi damaa sonn ñaari doom yu góor laa amoon man xaw ko def waaye daal gis ma ak gis ay butitam la yemale man damaa dem a dem ba damaa ragal damaa tiit nekk bi nekk ak moom si biir kër gi man maa nekk si biir kër gi aw ma fenn fu ma dem mënu maa fayal sama bopp loyaas mënu ma dara man du ma dem di ko yóbbu pëli di ko fa te juduma ko def dara dama koy dama bëgg a génn kër gi ma bàyyi ko ak yàlla ñi ma joteel ma ne la fii nii ñëpp dañoo dem ñëpp dañoo jël seen bagage ñu dem ki mu njëkk a joteel fii nii si koñ bi mag la te dafa roñ ay bagage am bàyyi fi këram dem di luyee kër gi kooku mën naa dem ba si moom ma jox la ko témoin chef de quartier bi mën naa dem ba si moom ma jox la ko témoin man loolu duma nangu sama rakk di ma ko def xay na moom moo bon bonu boppam rek mu def ma loolu noonu te loolu duma ko fàtte mukk sama àdduna man damaa yor ay doom moo tax bëgguma affaire bi jëm kaw te loolu bëggatuma ko àdduna teeg moom mukk sama àdduna loolu moo taxoon ma bëgg a génn kër gi man damaa am yaakaar foofu noonu pour ku ma jàppale pour man ma génn kër gi wutuma si dara du ko yóbbu pare du ko tëjlu du ma ko yóbbu fenn damaa bëgg a génn rek seen seen yaay gaañu na d'accord. waaw waaw mais ana seen papa. seen papa dama newu fi di. waaw moom mii moom papaam nekku fi moom. nekku fi waaw. xanaa am nay nijaay. ah. waaw boo ko boo bi bi ma ko laajee la moo tax jéem ko yóbbu ci yoon. Mhm. nee na moom El Préfet génn kër gi que mu koy poté. déedéet lii nii génne ko kër gi du ko du ko faj. Hmm. kër gi seen kër la. waaw fa la yaayam dëkkoon moom fa la dëkkoon ba ñu génn àdduna. cest à génn kër bu dee am waa ji ci boppam mii nekk ci lu dul yoon moo war a génn kër gi. bien sûr. te leen rek ñaar rek ñoo ko mën a ñoo ko mën a dimbali. mooy bu fekkee am nañu ay kilifa maanaam papaam di dund wala papa waaj di dund wala seen nijaay di dund. Hmm. mu ñëw régler situation bi wala moom mii mujj gàddu fitam dem police wala gendarmerie bu dee li muy wax dëgg la. Hmm. mu dénoncé waaj. loolu moo koy régler de. parce que aussi tamit mbokk neex na waaye nag mbokk ki ngay jàppee mbokk mooy ki la jàppee mbokk waa ji bu ko jàppee woon sëram xam ne ñoo bokk yaay. ak lu mu mandi mandi mandi ak lu mu lu mu ñàkk lucide hmm. am na yoo xamante ne ji man jàpp naa ne war na koo génnee war na koo jombale bopp man loolu laa jàpp. Ndiaye neex na. Ah, ah. Ndiaye dafa neex nag. ku màndi nga naan ak lu mu màndi màndi màndi. xam nga man ak lu mu màndi ma Ndiaye yow doo màndi. ah bëgg naa la euh, fexe nga ñam màndi. non ni nga <laughs> toogee di conseil naan ku màndi ak lu mu màndi màndi màndi war na ko mën a jàppee comme sœuram màndi. Ndiaye yow il faut nga naan ah il faut nga. tuux wala nga naan dañ maa yónni reportage ci benn festival. du wax nag zone bi quoi ma dem toog ña ma dendal di tux yàmba di ma xër rek. <laughs> loolu mooy <laughs> yow kon Ndiaye du naan du tux musoo essayé dara. déedéet du voler. musuma koo gis sax du suus. xalaat xalaatu ma ko. musoo non <laughs> man Ndiaye nag yow sa vie nag Ndiaye sa vie dafa manqué sel ah. loolooy sel. <laughs> kon de kon de abaa yàlla nañ dëkk ci lewet. <laughs> yi nga fex nii mooy sel. Ndiaye yow mosoo jël bu ne guyu mooy bu sedd. bu sedd. mosoo mosoo dem tool. yàlla tere. yow da nga cee kii. lan yow ngay mel ni kuy wax ak ngaa Ndiaye man du ma ngaa xale ah, lan da nga cee kii ndax da nga cee ndax yaa ngi ciy kii ba tey nga may laaj. arrêté naa mais là. Ndiaye man wuu en tout bi mu ngi femme bi. man man li ma jaaxal mooy ñi ma gis ñu koy naan ci télé yëpp dañuy gañ waaw. looy naan di gàññi nag. de ñi ma gis ñu koy naan yëpp. yaakaar naa ko waxee dañuy gàññi. daa daa métti de. sama doom bàjjen na. tuxum yàmba loo xam ne boo koy def da ngay nëbbatu. ok alors. waaye yéen yéen yéen a ngi wax mais réew mi. réew maa ngi réew maa ngi voyagé de. Ndiaye yow loolu noo ko laajte. Hmm. la moo tax ñuy tuxee mbaa bu ñu tuxee ba jaay laaj ko saa neex. Uh-huh. doo laaj lool déedéet dañu siitu bu ñu xëccee benn seen xëcc premier xëcc beeg deuxième xëcc bi troisième bi par uh-huh. force. lu tax lu tax. Ah, mais laaj man parce que man. <laughs> laaj naa ba sol <laughs> bi ko saa waxee ne ko ne ko siig googu na da cee bokk ndax ndax siig da cee bokk. bokk en tout cas femme bi. ci lim nekk ni moo wóorul parce que kiy dem di ñëw. Mm-hmm. dina sàkku mën naa dem ñëw leneen ak leneen mën na cee xew. mën na sa rey ma la wax rek ñaari solution yi moo ci am waa mën na koo rey. Mm-hmm. te euh, bu mu bu mu def ci xelam ne day génn kër gi bu génn day am ki nekkul ci yoon. Mm. di góor teg ci. parce que kii fu mu bu génnee kër gi fu mu dem day tumu ak ay doomam. fu mu wala ak ay doomam teg ci. te te te man bi mu nee ay doomam ci la sama tiitaange gën a yokk. Mm. ndax ki koy def magum jëmm moo bokkal benn wen mu am dooleem mën a défendre boppam mën a yoole boppam ndekam kooku moo moom nga bàyyiwul rawatina xale yu ndaw yi. Mhm. góor lañu jigéen lañu lu mu ci mënti doon. ñoom mhm. it seen bakkan a ci xott. moo tax na dem dénoncé ko. lu bon moom. dégg naa dëgg de na dem dénoncé ko bàyyi yoon jug autosaisir ci lijjantil ko boppam. waaw ah, man bu ñu ma woowee léegi ma wax leen fan la. ñu dem. Ndiaye. Mhm. balaa ñuy dem benn express moo ko am na benn waay bu ñuy wax Sidi Lamine jaane fii may wax yoon mi ngi ci loxo yoon Chine la nekkoon doon fa jàng moom nag dañ ko tuddee kilifa gu kilifa gu ñëpp xam ci réew mi <laughs> bon kilifa gi sax génn génn na àdduna. Uh-huh. mais Sidy Lamine Diané Chine la doon jànge uh-huh. ba dégg chinois ñi bis Sénégal. Uh-huh. bi mu ñëwee Sénégal am na ay commerçants yu nekk fii Sénégal. am na ay Chine ak nekk fii souvent dañuy soxla fii xaalis. chinois yi nekk pour di jënd ay gerteeg ay seen produits yu ñu jënd di ko yóbbu Chine. ay seen produits yu ñu jënd di ko yóbbu Chine dañuy jox fii CFA. dañuy daa am kuréel joxe ko fële yuwaan ci xaalisu Chine ñu joxe kon ni ñuy def ay Maroc ak ay am commerçant yoo xam te ne chinois dañoo soxla fii loolu am commerçant yoo xam te ne chinois dañoo soxla fii loolu affaire Sidi Lamine Diané moom dox mbir mi affaire Sidi Lamine Diané mu toll ci ay cent et quelques millions mu toll ci ay cent ñetti commerçant boole ko ñetti commerçant boole seen xaalis dinañ ko gëj hmm? mu jëloon passeport am jox ko kenn ci commerçant yi jox ko kenn yi léegi ñett yooñu nag topp ci topp ci topp ci topp ci ba coow li mujjee kii ba ñu porte ko plainte coow li mujjee kii brigade fajar bi ñu jàpp porte ko plainte brigade fajar bi ñu jàpp léegi ci biir dafa am ay pourparlers yu ci nekk mais pourparlers yi yi dafa am bi dafa am nu mu demee parce que am na benn kilifa bu dugg ci am na benn kilifa mais day woo kenn ci commerçant yi mais day woo kenn ci commerçant ki nga xam ne moom moo yore passeport nga xam ne moom moo yore passeport kaay ma passeport bi ne ko kaay jox ma passeport. ma jox la sama benn kër bu nekk si bi xotaan. ma jox la sama benn kër bu ko ñeneen yëg mais bu ko ñeneen yëg. xam nga na a baax xam kooku aussi. wax na ko yeneen moromam. kooku aussi. proposition bi ko yeneen moromam bu ñu ko rassemblé ba mu ñëw. léegi nag yooyu yëpp après bu ñu ko rassemblé ba mu ñëw parce que waa ji bien jàpp nañ ko. parce que mais commerçant yi. waa ji jàpp nañ ko mujjee saisir oto. kenn ki dafa saisir mu saisir oto Sidi Lamine Diané boobu. téye ko téye ko. te moom waa ji Sidi Lamine Diané passeport am dafa am kenn ku mu ko jox comme garantie. waaw am geneen kilifa goo xamante ne ji mi ngi ciy pexe ngir. récupérer passeport bi récupérer passeport bi. ñoom nag ñu récupérer passeport bi ñoom nag jot nañu bis bu ñu récupérer passeport bi. li taxawaa jooju sonn ci bu bëgg a récupérer passeport bi mooy borom passeport bi papam lañ ko tuddee. waaw yooyu nag dinaa ko dajale yëpp ñu ñëw si yooyu dinaa ko def yëpp en fait li ñu jéem ko lijjanti en fait gën mooy ñu bala muy bala muy ëppi loxo lijjanti bi weesuwul bu fekkente ne waa ji liñ koy toppee ne moo jël xaalisu jàmbur ba ñu jàpp ko na ko fay mm. ndax problème bi mooy am na ay nit ñoo xam ne waruñu leen a dugg dégg man souhaité wu ma ko ñu mm. leen di dégg ci ci ci ci yenn njuumte day am ah. àdduna moom ku dul jum amul mais nag ah. njuumte li gën a rëy mooy juum ba pare te nangu woon a juum. Hmm. juum ba pare te nangu woon hmm. loolu dina dina dina ci ñëw bu soobee yàlla. loolu dina dina dina ci ñëw bu soobee. voilà très bien nañ ko nañ ko lijjanti. léegi ñi ñi ñu ñi ñu. léegi otage otage. mais moom Sénégal lañ ko jàpp. otage otage mais moom Sénégal lañ ko jàpp. jàppoon Chine waaw. otage yi. li ñu doon waxtaanee. avant ndax xam nga kaso yi gën a compliqué. Hmm. Chine ak Japon bokk nañ ci. Chine ak Japon bokk nañ ci. mosuñu ma fàtte. bu leen yàlla kaso benn neexu ci moom. kaso moom dama lay wax benn benn benn benn neexu ci. mais diggante Chine. Japon Corée du Nord Corée du Sud seen kaso yooyu moom abaan na ko yàlla nëbbu jàmm. nëbbu jàmm c'est-à-dire réew yooyu dañoo compliqué ko am na ci réew moo xam ne mooy bi waaju kii ji jiite rek xaw ma jin jun suñu xaw ma mooy di noor la pour nga doon gàddu koram da ngeen tolloo tay kooku même pour nga doon gàddu koram dëkk bi dugg ci dëkk bi rek foofu prison la déedéet pour compliqué pour nga doon gàddu koram moom da ngay tolloo moom tay yaay bi mu nekkee président ba tey ku tudd Kim Kim dañu changé sa tur maanaam ñi ñi nga xam ne ñoo tuddoon ay Kim avant muy ñëw moom dañoo changé seen tur bi mu nekkee président ba tey kenn tuddatul Kim wotoom wotoom kenn du ko wotu wotoom wotoom kenn du wotu moom xam nga réew moom ku ñu fa tëj kaso nag boo duggee ci salon de coiffure cinq sois nga am ci wat cinq amoo ay nañ ma wat ay tintien ay nañ ma wat ay ay crête ak cinq sois nga am ma doon amul jur tànn sa métier ma doon amul jur tànn sa métier moom ngay def ak koo mën a def waaw moom ngay def ak a def amul sol jiin même bu sa baay nekk humoriste ak ko man lu sa baay di def moom ngay def te du ñëppay dawal oto aussi amul ay youtube amul ay film amul ay dara bu sa baay nekkee waykat yow kii da liyaar bala ngay gisee inscrits yi musicien ngay nekk de. loolu am Corée du Nord période Covid bi naa wóoruma de. période Covid bi naa wóoruma de dañoo déclaré benn cas 9 heures 10 heures ñu am 0 cas. loolu daal éliminé nañ ko éliminé nañ ko éliminé nañ ko éliminé nañ ni ñu séquestré nañ dem yow ngay loolu takk jabar mënuloo ko dara te doo ko bàyyi takk jabar mënuloo ko dara indi nañ ci avis avis ci avis avis am lu ci oustaz bi wax waaw maanaam ki nga xam ni dafay daa am soxna. waaw te noonu ko lenn. waaw daa am lu ci ustaas wax. waaw en fait bu dee ab jullit la. waaw li ko ci diine may. li ko diine may waaw moom ku jigéen ki. waaw loolu ustaas bi di leeral. waaw ay ci ñu déglu déglu. problème bi nga posé day problème mu société la. bu nga xamante ni bii ñu koy dund bari nañu. Euh, li ci metti nag mooy dafay problème mu biir néeg boo xamante ni bii euh, ñu bari leen yàlla bindee ci kersa duñ ko mën di wax di ko dundaale muy. metti ci ñoom trop waaye li leen ci lislaam sant mooy feek ñi ngi mën a jàppalanteeg seen boroom kër mu faju te boroom kër bi nangoo faju dañ leen di may temps mën a dem faju ji bu fekkee nag borom kër bi nangu wula ji te ki nga xamante ni kii mooy ku jigéen ki mën na muñ kon ba tey lislaam bi leen di bàyyi ñu continuer seen couple ci noonu bu fekkee borom kër bi nanguwul faju ji te ndaw si nanguwu la muñ wala boog mënatu la muñ su boobaa mu laaj divorce am yoon la yoon may na ko mu laaj divorce am su ko waa ji nanguwu la nag su boobaa mu yóbbu ko ci yoon parce que koo gis ci àdduna bi am na kilifa mu yóbbu ko ci yoon yoon dindi seen diggante sëy nag ci nit la bokk maanaam tëdd ci lal sëy ci nit la bokk boroom xam-xam yi dañu wax ne lu bon bon ñeenti weer yu nekk war nga ko def benn yoon ñeneen ñi nii kenn ko ci nekk saa yoo ko soxlaa war nga ko def kon bu ñu demee ba ñu xañ na ko te yàlla du doon wax ne li man xashiya la anata minkum li la ciy dugal mooy nga dem ba mënatuloo muñ pour def lu bon su boobaa nga dem ñaan divorce bu waa ji bañee nga yóbbu ko ci yoon yoon teqale seen diggante parce que sëy ci jàmm dong lay tegu yàlla rek moo doon leeral oustaz Mor Thiam oustaz Mor Thiam. moo ko doon leeral oustaz Mor Thiam. waaw. Ah. leer na. bu baax a baax. nañ leen libéré wala ñu libéré seen bopp. Ah. suñ ko mënatul muñ nañ ñu libéré seen dimbali seen borom kër yi gunge leen bañ mën faju tamit loolu am na solo de. gars yi dañ leen dimbali malgré ñoom mënuñu si dara wax ji dañuy bañ rek. malgré ñoom mënuñu si dara wax ji dañuy bañ rek. patience da cee baax de. yaay eh, patience eh, patience 5 ans 7 ans 10 ans. doo gis aussi patience da cee baax de. Oh, patience daa day limite de. patience daa am limite. Hmm? Hmm? ah mais xam nga aussi mënut a ñàkk parce que xam nga sëy aussi ah, la la ngay fekki moom bala nga fay xam da nga koo fekki da nga faa def waaw ah, ba pare ñoom li sëy bi nag Ndiaye mooy da ngeen ànd yéen ñaar pour le meilleur da ngeen ànd yéen ñaar et pour le pire le pire moom boo ndax xam nga Sénégal bari ah, na le pire kay moom lu nekk la moom xam nga Sénégal a ci am début ba fin pire rek a ci am. début ba fin. Hmm? dem. déedéet heure bi jot na. sama seex sàcc la. xalaas gi de yow yow yow yow Ndiaye. Mhm. xalaas bi saa yi xaw ma xanaa xëy na li ma nekk ci milieu seex moo tax de mais xalaas gi man daw na sama yaram bi de. Hmm, ay jumeaux lañ daal. waaye jumeaux lañ góor ak jigéen mais ku jigéen ki moom may wax mais seexam bu góor dafa am lu ñu ko def. Mhm. loo xam ni day sàcc rek. nii nii mi ngi kaso bi. bu toogee seen seen kër su ne sama loxo yaa ngi rek mooy jour boobu dina sàcc ne ko jàpp. ndeysaan xale la wala mag. 2005 lañ judd. ndeysaan. ñu dem ñu ne ki leen ko def ku leen jege la te génn àdduna ci armeer la ko def Mali Guinée Gambie seen yaay wóor na bay bëgg a dee. duñ ko ci dóor rek di ko yuuxu sàcc. léegi dañ ko sax comprendre léegi mais foo jaar lu nekk lañ koy defal lu ko seen waa kër defal nag. moto lañ ko mujjee jënd bu 500000 moto ci moto bi amoon na ci amoon na ci problème bu tëj ci kaso 2 ans. te xam nga nag cas yu mel noonu justice du ko comprendre de. non non ay kii dañ ko liggéey hmm, justice xamu ko amul ci yoon. nee na bu toogee jour bu génnee kaso def un mois toog na sama loxo mi ngi xasan. Hmm. jàppal jour boobu noonu noonu noonu noonu. Hmm. dina def ñombe te dinañ ko jàpp ci loxo yi lañ de lañ ko def. te moom avant muy dem day taxaw wax ne. sama loxo bi. waaw seen waa kër dañ koy tëj ci kër gi dañ koy tëj mais bu génn duñ ko yëg te lu mu sàcc lu mu sàcc da koy maye. ñoom comme ki ko def dee na. ça kon xam nañ ko. fu ñu dem dañ naan leen jigéen ak ko def ku leen jege la te dee na. ah mais mënuñu ko leen wax. ci armeer ko def. nee nañ nag daaw ren li dee seen ay mbokk kenn xamul ñaata la. Eh, Njaay nit ñi. parce que loolu dina naqaree mais nit ñi Njaay da xalaat ci àdduna ak loo mën a def. da ngay xëy dem nga yàq doomu aadama après nga dem bàyyi ko fi nit amul kenn ku immortel. léegi seexam bu jigéen mooy expliqué. seex bu jigéen bi waaw parce que en fait lim ci làmb. waaw làmb jii di am ci réew mi. Mhm. suñu aadal ak suñu cosaan. waaw moom moom la wax. Mhm, moo am sax. d' accord léegi Mohamed violence ci làmb pour man exception la waroon nekk. Mhm. mais léegi principe la. Hmm. waaw. lu xew. xam nga xam nga dama ne principe la. su làmb waree am suba. da ngay gis nit ñi commencé sensibiliser moytu leen zone bii moytu leen zone bi parce que làmb dafa am du ñuy daw agression. démb njaay li xew ci dëkk bi du dëgg du yoon. Hmm. waaw. ci làmb ji dafa mel làmb amul démb. Hmm. ñu ne semi nocturne la mais njaay démb agression yi démb borom moto yi comme tulleeg male bi làmb ji yéexee bëccëg sax bi làmb ji ba avant muy commencé Masaalikul Jinaan bi ngay wax nii. Mhm. fa lañ ko commencé. diggante Colobane Masaalikul Jinaan HLM Technopole euh, boori Mariama Niass bëccëg ndar kam mhm. yore ay moto def fuul ku ñu romb agressé la. mais xam nga nag yaa ngi tooñ ak lu làmb. déedéet tooñ ma ak lu làmb de. bu fekkonte ne violence bi dafa am ci biir arène bi. waaw. Ah. mbër yi xeex wala supporters yi xeex ñu yàqate arène ba. laa mën nga wax violence ci làmb ji. mais lii nga may wax nii. insécurité la c'est-à-dire. ci làmb. Mhm. ajuwul ci concert. Mhm. ajuwul ci meetingu politique. Mhm. ajuwul ci ci ci maanaam lii insécurité la xam nga yaa ngi naan ma Colobane ma Salikul Jinaan. waaw arène ba mi ngi Pikine. déet dañ fay jógee di dem. waaw mais mais ça n'a rien à voir avec la lutte. mais mais chaque chaque fois bu la am amee amee loolu am. waaw d' accord mais buñ ko taxalee ak làmb ji. xam nga a garaaw mhm. mi jiitu si ba tey di ak ay moto ku ñu doon agressé la xanaa loolu gën a dee. est ah, may bañ rek mooy nit ñi di jël viol làmb ji am na violence d' accord naa. mais yi nga may wax nii taqewul ci làmb laalewul ci làmb gis nga ñii agressé waaw Euh, boole ñàkk jom. waaw bëgg lu yomb. ba tax ñuy dogale nit ñi. dañuy profité ci événement yuy dajale nit ñi. mais doo dégg ñu ne mbër sàngam moo leen ko sant. mosoo gis mbër muy def face à face di wax ne sama supporter yi maa ngi leen di woo bu bés baa na ngeen agressé tel lu endroit ba tel endroit. exact donc li ngay wax ni mm-hmm. problème mu insécurité la. problème mu incivisme la. Mm-hmm. d' accord naa nag làmb am na violence. mais lii moom bu ñu ko bëggee faj. buñ ci tudd axlu làmb léegi nag bu làmb amatee. Hmm. wala léegi bu làmb amatee. Hmm. gouverneur ni muy interdire moto yi. Hmm. na ko interdire noonu. <laughs> borom càq dégg la ñu dem. mais non borom càq nañ jël seen seen responsabilité kon tey bu ñu xamoon taximaan taximaan jël seen responsabilité. ay ñu dem. ah. Euh, liñ doon waxtaanee démb am nga am nga fit bu dem bëri ngay ngay moom xamatuma ci yow lu bari <laughs> liñ doon waxtaanee démb waaw. yaa ma ngemb yow mii yaa ma ngemb waaw kii seexam bi ñu doon wax ne. dafa am lu ñu ko def Mohamed. mu nekk góor ñu judd 2005 nekk xale yu ndaw. góor ak jigéen mais ku góor ki lañu def loo xamante ni moom day jël rek. ndeysaan te lu mu jël maanaam da koy jëlee ci sàccee ci yow ñoo may ma ko. xam maanaam bu fekkoon ne day sàcc dafa nekk dans le besoin ñu d'accord. Mhm. mais da koy sàcc maye ko. te nee nañ ci li nga wax démb. dañ ko koo def te dañ ko ko def te kii ko def da koo jege. te faatoon na non. te dee na te ci ay armée la ko def léegi nag moom genn wàllam mooy wax ni. ñu déglu ko d'abord ñu déglu ko pare ñu dem. man ak moom ay seex la 2005 lañ juddu ay ka muñ sama yaay moom naa li ko desee bëreetul ndax naqar boo xam ne mi ngi koy dund si xolam xëy na amul kenn koo xam ne mën na ko partagé wala moom problème bi mu am du lenn lu dul rek day jël maanaam day sàcc ka tey su fekkente ne dafa ñëw yow fekk la nga toog mu jël cinq si yow te yow moom cinq mille boobu su tourné bu tasee ak man danaan ma am ma may la te leer na ne da ko jëlee si nit ñëw na la yow am ma may la donc su fekkente ne yow xool nga poosam jour bi mu lay bi muy jël bi si jàmmam da nga ciy fekk 40000 wala lu ko ëpp te mu leer la ne yow kii li muy jël doyewu ko dara tey mën na jël sa téléphone nga di koy wër di koy wër di koy wër di koy wër ba sonn mu toog ba mu yàgg mooy la diw nga ne naa mu ne la téléphone baa ngi ci doo mën lan mooy cause bi foo yaakaar si àddina dem nañ fa sëriñ boo yaakaar koo dégg ñu ne maaman la wax naa ak moom mu laaj la xaalis bu dul jeex ngay toogaat tuuti dégg na problème

mën di waxal lim lay wax mooy li dañ ko def te ki ko ko def mag la ki ko ko def soxna su kilifteef la te nekkatul di dund génn na àdduna maanaam ki ko yàq génn na àdduna te musul tooñ kenn musul def kenn lu bon affaire bi biñ koy commencé di ràññee si moom loolu mooy premièrement bi nga xam ne euh, dugg na kaso te mu jote woon ak ay nit ci xeex ci werante donc bañ xeex ñu dugal ko ñu toogaat un mois yàggul mu ñëwaat amaat problème bu ndawaat demaat ba bii nii nii ma lay waxaat nii deux ans la fa def ñëw bu matee un mois ci lay yem bërki déem lañ ma waxaat ne ma duggaat na mu nekk loo xam ne nit mënu la ko wax yow ba nga gëm ko koo wax mu ne la kii dañ ko yàq dañ ko yàq dañ liggéey tax muy def lii koo wax ñu ne la ku ko ko ko def mbokkam moo ko def lii te kenn deful kenn dara parfois day toog ba mu yàgg da wax ne sama loxo yi day xasan jour bu la waxee loolu rek yow xamal ne balaa ngoon la yow di nga am lu la naqari su ko defee da ngay gis da ngay di toog di waxtaan moom comme man sama seex la damay obligé jege ko du ma bëgg mu génn mais yow minute bi muy génnee ñu ne la def na dara ak minute bi ñu naan la yóbbu nañu ko yow benn lay doon te man heure bu waree dem rek maanaam exemple heure bu ñu ko waree bu ñu ko waree arrêté man dama koy yëg sama yaay dafa mujj ne moom li ko leer moom mooy que naqar bi la mënatul supporter si xolam ñoo ngi tàllal ñëpp la woon te avant moom boo xam ne cinq cent mille ko ko jëndalee amuñ lu du na amoon na problème ñaar ñu doon xëccoo moto moom moo nekkoon ci seen biir xaw ma moo moo man daal xaw ma lan lañ waxati woon bañ téye leen ñoom ak ñoom ñaar ñooñu bu mujj bii nii mu mujjee demaat nii ñii may waxee ak yow nii bërki démb lañ ko arrêté waat yóbbu ko ci affaire de xeex ñaar ñi Cheikh yoonam nekku ci dem si Mara kenn xamul dafa sangoo sangoo sangu ba sonn nit da lay jox ndoom ba maa mu jox la téere ne la bu ko takkee de incha allah dootul demaat fee wala bu ko takkee du def lii du def la foo ko fekk mi ngi julli foo yàlla nit ku baax la nit ku set 2005 lañ judd ay xale lañ koo wax mu ne kii dañ ko yàgg tëkku sa mbokk mi dakaa yàgg tëkku sa mbokk bi moo ko def lii sa mbokk bii dundatul te ñu dee ci famille bi diggante daaw ak ren kenn xamul lu ñu toll doful dara dalu ko amul benn dépression li nekk ci moom ci loxo bi la nekk day jékki di la wax sama loxo yi day xasan bu ne laa sama loxo yi day xasan rek yow jour boobu mën ngaa préparer sa bopp te xam ne dina am lu xew su ko defee da ngay gis sama yaa ne ko loo looy def rek def ko si biir kër gi moo gën bu ko defee ñu kër gi dem nañ ba ñëpp rek comprendre nañ ko xam nañ ne lii tay ko koo yaakaar Gàmbi Mali foo yaakaar laa la wax ne la dugg nañ fa ak moom foo yaakaar dafa sangoo sangoo sangoo sango naana naana naan ba mënatul a naan ba tey dara réussirul ñoo ngi tàllal ñëpp loxo ñu jàppale ñu sama seex seex la sama seex mais plaisir bi nit di am nekk ak seexam plaisir bi nit di am di partager ak moom man awma ko parce temps bi nga koy amee balaa nga wax sax ñu ne la lii xew Mohamed kii nii amuñu sax vingt ans en fait. Mhm. c'est-à-dire au-delà ñu ñu ñu war ñu war koo dimbali wala yooyu noonu. Mhm. lan la war a def ci àdduna ba nit di ko di ko di ko teg di nii quoi bu fekkente ne noonu la demee. mais maintenant xam nga li li naqaree lijjanti bon loo gis yàlla la jóge mais eh, loo xamante ne ji sunu borom moo ko moo ko teg teg doomu aadama. Hmm. Eh, bu dee li ñu wax lu am la loxoo ko def. Hmm. mbokk yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu découragé dégg nga nee na sangu naa sangu ba sonn naan naan naan ba sonn mais bu ñu bu ñu bu ñu découragé da ngay xëy yor yor dara. di seet koo ko jox doo ko gis nit xëy di wër loolu gisul ku ko jox ñoom ñaar ñëpp ku ci découragé. Hmm. morom ma du gisee ak morom ma. Hmm. donc li ma la bëgg a foofu mooy bu ñu sonn ci di ko di ko di ko di ko di ko jéem a faj. Hmm. peut-être dañoo dajeegul ak li faj. te comme lu nit def la ngay dégg olof yi ñuy wax ne lu loxo def. loxo da koy dindi loxo mën na koo dindi. donc buñ ci buñ ci découragé wax na nag lu am solo dafa am nit ñu nit ñu mel noonu dégg nga nee même bu fekkee ñaari nit ñooy xeex. moom mu bokk ca. Hmm. bu ñëwee moom la ñuy jàpp moom la ñuy yóbbu. comme ni ñu aawlu. Hmm. gisoo sa ñaari bët yi sax am na ci boo xam ne tout le temps mooy fattu. Hmm. nag mais nag mais nag na ci ñoo am boo xam ne baaraam boo xam ne tout le temps mooy metti loolu noonu dafa dafa dafa am loolu ci ndogalu yàlla sunu borom la mais bu ñu découragé parce que bu ñu découragé rek dañ koy seetaan. parce que yenn saa xam nga xam nga xam nga yàlla da lay jox benn benn pouvoir boo xamante ne day toog seetaan rek ngay def. mu mel ni yow maanaam sa sa sa ngóor la wala sa ndam la. Mhm. mais ëllëg dina metti eh, Mohamed gis nga ndaw si nii di wax nii. Mhm. situation bi bii muy dund nii pour nga comprendre ko. Mhm. il faut nga mën leen a observer c'est-à-dire nekk seex wala nga nga nga nekk yor ay seex nga mën leen xool. su kenn amee lu ko metti ci keneen ki et tout. waaw li ko taxaw li ko taxaw moom li ko taxaw beneen bi nag mooy sëriñ si nga xamante ni moom la nit ñi di jug di dem ci ñoom pour def keneen lu bon. tey man mu jug man passe partout dem ci benn maaman pour uniquement yàq Mamadou Mouhamed Ndiaye yàlla day toog seetaan. Mhm. yow nga def mu jàpp Mouhamed njaay mu yàq ko après li pour quel plaisir. am na tax bu tuddee sëriñ ñu koy da ngeen tuddee ay. yàq maaman laa maaman ko en fait. Mhm. léegi man plaisir loolu laa bëgg a xam. léegi da ngeen ba léegi loolu seen normal Sénégal da toog ci internet gis ko naan la damay jaay noob pour nga noob sa jëkkër wala nga noob sa jabar soo bëggee sa jëkkër topp la comme nit ñi di wootee di jéem wut te ñoom ñoo koy def nag ndeysaan divorcé nañ ay yooni yoon. waaw mais non mais léegi yow tey nga nopp nga nopp Yacine Pouye mun ñëw mun nopp la ànd ak yow nga koy def loolu nekk après est-ce que di nga fier ci yow nekk bi nga nekk ak moom. Sénégal daal franchement parlant quoi ñiy def lu bon ñi fay dem ak euh, maama ñi koy def ëllëg. nañ ñaan yàlla nañ ñaan yàlla mu musal ñu rek. en tout koo xam ne mën na ci lii dara ngir yàlla ak yonent bi ñu ñu ñu contacter ñu ci 77 157 17 di préciser na aussi booy ba léegi mi ngi ci mi ngi ci loxo yoon. dañ ko jàpp waaw. mais suñ ko mënee dimbal nañ ñu contact ñu mettre en rapport te yàlla tax te yàlla tax. d' accord ñu dem. maam Idda. Mhm. de deux ans la am moom tamit. yaayam dafa am wér xel ñu baal ma daf fi jóge woon maanaam comme ñi nga xam dañuy jékki-jékki dem. mais mi ngi nekk ci sëyam dëkk Diourbel mu jékki-jékki boot doom ji dem ak moom ñu koy seet di ko seet et seet trouvé que ndeke boobu mi ngi benn kër sëram Gambie. Hmm, te xamuñu ko. xamuñu ko ba ñu wooyee sër mu effectivement mi ngi fi mu xëy xëy ne day ñibbi sër bi téye ba sonn di surveiller di tëj di tëj ba benn jour mu dem liggéey rek mu génn dem boot xale bi dem. Hmm. pendant sept à huit mois seen waa ko di ko wër. Hmm. gisuñu ko. ndeke boobu mi ngi gànjaay fii boori Kaolack. Mhm. walla gis nañ ko. mais doom ja. lañ gisul ak moom. doom ja mu bootoon waaw. fan la leen wax ne fa la ko dugal. boo ko laajee daal mu naan la mi ngi fii mi ngi fee kenn amul benn information kenn kenn xale bi mooy de deux ans lam feragul sax nàmp da koy boot di yóbbu xaaral moom na foto xale bi wala ñu déglu ba pare moom na foto ñu déglu ñu déglu ñu dem. suñu benn soxna moo demoon côté Gambie mu amoon fa ay sept ba huit mois yàlla dogal nag mu demoon ci benn magam foofu noonu bi mu demee nag yàlla dogal mu ne tey génn kër gi dem léegi mag ji di ko tere ba yàlla def euh, benn jour mag ji xëy rek mu fexe ba génn dem ànd ak doomam boot ko euh, bopp bi daal xaw a mel ni daal lu yëngatu daal euh, mu jël yoonu ñibbisi heure bu ñu laajee mag ji mu ne ah kooku de gëj na kaa gis gëj na kaa gis ba noonu ñu foog nag ne xëy na ñibbi na xëy na gis na ko ci diggante bi ndegam ñun heure buñ ko woowee duñ ko jot ñu foog ne rek euh, ñibbi na waaye ndekete euh, mu ngi jëloon yoonam di ñibbisi yàlla dogal nag euh, ñun buñ koy gis gànjaay lañ ko gisee biñ ko gisee gànjaay nag wuñ ko mu ànd yor doom gisuñ ko mu yor doom te doom ju góor la yóbbaale woon doom joo xam ne ferogut léegi nag jëkkër ji bi mu yégée ne mu ngi gànjaay mu dem gànjaay bi mu demee foofu it mu ñëw ba ci marché bi mu séen ko muy traversé bi mu séen muy wax moom la wala soxnaam na parce que dafa yàgg ci àll bi ba xàmmeetu waaw xàmmeetu ko woon soxna si mu ngi tudd Ayda Ñang jëkkër ji mu ngi tudd Mouhamed Ñang doom ji mu ngi tudd Idrissa Ñang ñu naan ko Idda maam Idda lañ koy wax maam Idda moomu nag moom lañ gisul boobu ba léegi nag ñu ngi koy wër euh, ñu ngi koy laaxaan Gàmbi ko laaxaan Kaolack di ko laaxaan Gànjaay fépp daal ñu ngi ko fay laaxaan waaye daal yàlla def na daal ba léegi euh, mënuñu cee am lu leer waaye ñu ngi ñuy wax ne mu ngi ci jàmm ah ñu ngi ñaan yàlla nag ki ko yor ñu ngi koy ñaan yàlla euh, mu delloo tamit suñu doom jooju xam na ñun ñi wër nañ ba sonn waaw wër nañ ba sonn eh, di ñaan yàlla nag eh, yàlla leeral mbir yi eh, ba ñu mun cee jotaat Jurbel lañ dëkk Jurbel gi njaareem fii lañ dëkk ñu ngi dëkk Grand jurubel képp ku ci am ay nouvelle yu leer wala nga gis xale bi rek ñun ñu ngi dëkk Jurbel mi ngi hmm, ci mën lu dul ñaan. Hmm. ñaan ñi ko gis. ñu fexe parce que amoo koy xelal amoo koy yedd. Mm. dafa doy waar daal. Mm. dafa doy waar daal ngi dem ñu xooli Mbagnick Ndiaye. Mbagnick euh, Mali la nekkoon moom aussi. Mm-hmm. doon fa liggéey. Euh, après daal amoon na fa ay. booy booy sa yaram tàng na de. ah vendredi. Mm. météo mën na am mu taw ci weekend bi. ah di doon ndoxum jàmm. non ñu aw ay lundi yooyu wala mardi. ëpp naa def. dégg ah. yàlla dafa dogal di euh, dafa génne àdduna. fan fa mu liggéey ca Mali. Mm-hmm. léegi nag ay mbokkam. Mm-hmm. lañ xamul. kii nga xamante ne moom moo fa nekkoon moom. Mm-hmm. ci ay jamono mës na woo mës na jokkoo ak benn sëram. ba ne ko fexe leen ngeen jël si mbañik. ndaxte xam naa ne xel mi dafa commencé di kii. parce que boobu amoon na problème ba duggoon prison ba génnaat. Mhm. mais xel mi daal commencé woon na di mel mel luy dem. Mhm. ba mu waxoon ak sœur bi parce que man moo ko woon ko ko mu waxoon ko nekkoon nañ ko jël si. léegi kii di waaj a wax ni bi mu seetloo changement comportement ci Mbagnick. woon mhm. hmm, na ko nee na na ko jàmm nañ dëkk fii Dakar. mais Mbagnick moom yàlla dafa def mu faatu ca ca Mali foofu ca Mali waaw ndeysaan léegi li ñu bëgg mooy mbokk yi yëg ko waaw ana néew ba ma nga foofu war na ci dëkk bi mu nekk sax hmm? turu dëkk bi laa la la la laa jàppul dana xaw a metti ci famille bi koy xëy di dégg de waaye nag information la waaw ñu déglu déglu ñu dañ ci amoon benn cas Mali suñu benn waay boo xam dafay nekkoon daal mu faatu xamuñu ay mbokkam mi tudd Mbagnick nag mi ma waxoon nee na ma Diamaguène la dëkk mi ngi tudd Mbagnick Ndiaye Diamaguène bu Dakar la moom mastama mas ma ko ñu si tala dëkk quoi Diamaguène la doon liggéey benn ville bu tudd Ñaafunke fa la nekkoon ci Mali ville bu tudd Ñaafunke foofu la faatoo Ñaafunke mooy am na opposant bu xawoon am doole boo xam ne bari xamoon nañ ko tuddoon Soumaïla Cissé voilà foofu la faatoo ah, man nag ci ay jamono yu njëkk moo fay nekk jamono naa fu ma ak moom mais man damaa jóge woon dem bàyyi ko mosoon na woo ay mbokkam ci sama numéro benn magam bu jigéen man ci laa profitoon amoon numéro am jamono yooyu nag fekk ma déplacé dem Côte d'Ivoire mooy jamono coupe du man boobu nekkee Côte d'Ivoire ci laa woowoon rak magam bu jigéen boobu newoon ko nañ ndax ma ko gisee nii nekkoon na ci Mali xam naa ne feebar bi moom foofu la jógee ndax ba mu ñëwee gis ko fa tombeek ñu wax ma ne ma mbañik dañ koo jàpp mu ne ci kaso bi ci laa dem doon laajte ba xam ki mu joteloon ak naka la demee woon ci benn liggéey bu ko joxoon ñu laa lekk xaalis ak n ban tëjoon ko ci boo demee calculer ko xam ne ay manœuvre la ñu ci tegoon bu dugal ko ca kaso après ñoom ci leen ko bàyyi mais daanaka mën naa ne yaram foofu la yàq da nga ñëw taxaw wax ak dëkk bi sama destin moo fi nekk bu ma tëddee fii dinaa ko gis nga xam ne kii carrément bopp bi dem na après nag man boobu fa laa dem Côte boo xam ne moom mi ngi rakkam boobu ci moom woo itam woowoon naa ko mu ne day nijaayam mu dem jëli ji mais man après nag bu ma demee Côte ci lañ sàccoon sama saak fekk sama téléphone ci nekkoon téléphone bi ci nekkoon ci la numéro magu ko gis mais jàmm gën bu Dakar la dëkk koñu Sita loolu la ma mas di wax man ñoo bokkoon nañ fa doon liggéey ci ay jamono mais da dem bu jàgg moom mu ber dem yow liggéey boppam man nag la ma doon liggéey moom jeexee dama faa jóge woon mais moom ma nga fa woon ba léegi nii